le 13 octobre à Paris ça va chauffer Dinatar, dinasner. dina neex te it ne ko dugg mag moo yëngal Quoi kuy sa référence mu sundo. Youssou Ndour lu tax ca jom ja ca fulla ja ja tamit a ja doomu yaay càlle ngi invité dans l'émission kergi la maison avec IGFM en direct sur la RFM affaire de. Pape Diouf la ñu wax jaajëf jaajëf waay dëgg waaw mais pas naka affaire yi. Ouais, waaye maa ngi cool installé wul. cool cool cool cool. mais est-ce qu'il y a ngi relax. bu baax ah relax toi Hein. maa relax bu baax xam nga yow ah fii sama kër la si la. fii moom fii moom mooy sa kër yow. loolu kenn du ko muy mooy. yow fii moom mën na gongo. waaw dëgg la de. waaw fii moom gongo. wallaay dëgg la mais Pape comment tu te sens actuellement. ben machallah. ça va. ça va ouais. t'as la pêche. on s'accroche. Ah, ah. un peu fatigué mais ça va. Ah, waaw lan moo indi fatigué. ah mais liggéey bu bari rek waaw waaw liggéey bu bari rek. mais sant yàlla alhamdulilah. da nga xaw a maigrir tuuti wala c'est normal c'est normal dama j'ai j'ai trop maigri. da j'ai trop maigri. oui c'est ça que j'ai ah oui pourquoi nga maigrir. mais parce que liggéey bi la. préparation bi je dors peu je mange peu. ok préparation événement moo mel noonu quoi. ok ah oui tu es sur beaucoup de choses. Mhm. tu vois mais sant yàlla quoi. sant yàlla alhamdulilah. donc les Sénégalais de la diaspora yéen ñu ngi seetaan partout dans le monde on prépare Bercy 2018 à Paris le 13 octobre Nous sommes mobilisés. Nous muy en Espagne muy États-Unis d'Amérique muy Angleterre Suède à Paris en Italie en Belgique Pape Luxembourg Allemagne Allemagne Hollande Hollande euh, Danemark Danemark Sweden Suède. Norvège Norvège ñu ngi kon <laughs> rendez-vous le 13 octobre à Paris avec Pape les à A quoi génération consciente bëgg